salaamaaleykum salaamaaleykum ami internet Thiès Info mbokk yi seen mbokk seen xarit Fall Damel ah ci li nga xamante ni moom moo xew ci mim réew li lëmb réew mi li nga xamante ni saa suñ ko waxee comme ni ñu ko faral di waxee saa su nekk rek loxo dem ci gémmañ te du ànd ak euh, tibbub ceeb tey jii nag mbokk yi ah man damaa waal non damaa ma jaaxal mooy man dama xamul nit xawma gaañ yi dañuy xaru xawma du leen daal parce que interdit nañ leen ni leen toog leen seeni kër. wax nañ leen ko n'est-ce toogoo leen ci kër yi ngeen waaxu jëm ci li nga xamante ni moom mooy ndaje yi lu ci mel ni terrain yeeg yu ni mel ñu tere leen ko xoolal li nga xamante ni moom moo xew nekk lu doywaar xale yi nga xamante ni ñu ngi bàkkel yéen tere nañ leen bawoo leen ba pare man li ma ci gën a naqari mooy xeex bi ngeen di xeex ak gendarme yi ba blessé ci ñaari nit lan moo waral loolu lan pour quelle raison lan dama xamul ndax indiscipliné la. dama xamul ndax ñàkk xam la dama xamul <laughs> boo yéen am ngeen fit de yéen dañ leen a wax bu leen football bu ñu ñëwee dàq leen ngeen daw man loolu laa xamoon ci jeune bu gis gendarme day daw mais yéen ñu dàq leen au lieu que ngeen daw daw leen taxaw di riposter di jaay nii laa mel di xeex ak gendarme yi ba blessé ci ñaari nit pour quelle raison lan lan moo tax man bopp man sénégalais yi damaa xamul ndax dafa am ñoo xamante ni dañoo am problème wala nu mu dem quest te moo tax gëmoo leen mbas mi là-bas aussi à Touba aussi ah 38 personnes fanweeri nit ak juróom-ñett yoo xamante ni ñoom itam dañ leen a teste bañ ni ñii corona nañ am nañ am nañ coronavirus n'est-ce pas li leen waar kay mooy dem ñu traité leen soit ci seen i kër soit ci fi nga xamante ni moom mooy kër docteur mais lànk la ñu def loolu <laughs> lànk kandaar daw kenn gisu leen ñu réer mër pour quelle raison xoolal loolu imaginez ñaata cas communautaire la nar a jur ci mim réew. te nag li gën a doy waar mooy li président Seydi Gassama wax <laughs> nee na benn cas transmission communautaire benn bi ah ci weeru lëm mën na jur lu tolloog quatre cent personnes maanaam kenn nit ku ko am mën na ko wàll quatre cent personne <laughs> loolu mooy ñaata cas transmission communautaire trente-huit yooyu jël ko nga multiplier ko ñaata nit ñoo nar am coronavirus gis nga bas mi ah comme ni ma koy waxee rek dàqewul demul fenn dafa toog sur place. ñun askan bi ci suñu jëmi bopp ñun ñoo dëgër bopp ay masque ay masque takk masque kese masque boo xamante ni ça coûte ko deux cent franc bu seeree ba seer cinq cent franc ñun la takk ko nga mucc nga lànk di doo ko takk pour quelle raison lan tax loolu donc kon ce qui veut dire xale yi ci seen jëmi bopp ñoom ci seen jëmi bopp ñoo xamatul fu nu jëm ñoom leen neex mooy ay piscine paat <laughs> ah loolu moo leen neex li leen neex mooy dem sorti li leen neex mooy dem dem ci plage yi di football pour quelle raison gars yi mbas maa ngi ci dëkk bi de. li nga xamante ni ñoom ñooy ñi lànk ni duñ takk masque comme ni ko Assane mi defee ah man sama kër laa nekk mais su ma génnee damay takk masque automatiquement amul leneen jàpp nañ ci lu toll ci mille quatre cent quatre-vingt-dix personnes yoo xamante ni nii ay jeunes lañ am na sax ay pa ak i mère pour quelle raison ndax lan ñu leen di jàpp ci ay masque dem leen takk ko c'est facile c'est simple gars yi nag fi mu toll nii seen i liif lan yor de caaxaanatuñ ci ñiy làqatu di defi ngénte waxoon naa ko la fois passée ak nga xam ne dañuy làqatu di defi mariage ak yu yi léegi seen i liif lan yor fu leen fekk dañ koy jëflante ak yéen ba mu saf sap ku war a defal boo yàqee mu ñaaw man moom laa gis ci ba tey ci mbas mi mbas nag non gars yi am na bayra de <laughs> ci réew mii ñu nekk ci askanu sunu gaal koo xamante ni dafa war a faj ah di ab élément de santé parce que ko croix ak lu mu mën a doon yaa ngi ci biir santé moom ci jëmmi boppam dafa ñëw ci ndaw si ci ndaw si nga xamante ni dafa feebar am coronavirus ñu war koo faj dèjà yow ko am corona rek yow kooku moom waroo ko teg stress waroo ko sonal waroo ko jige waaye ci jëmmi boppam ubbi bunt bi dugg fekk ndaw si fu mu toog ci lan bi mu commencé di wax xam nga rek góor ñi des fois bu ñu la bëggee wala bu mu bëgg dara daa am lu ñuy aborder naka mu sawa nuyoo affaire yooyu noonu ndax fii mi ngi neex. commencé bëgg def ak ndaw si naka sudul noonu ndaw si moom it bokkut ci kacapan yi bokkut ci ñi nga xamante ni xale jigéen yi nga xamante ni mooy loolu foo leen mën di fekk ak fu mu mën di doon bu leen leeree ni wéet nan ñoom ak yow ak yàlla kese boo nee action ñun la acca non xale bu jigéen bi bokk ci gàcce ngàllaamaa moom ah, li ci gën a yéeme te doy ci waar mooy mu nax ndaw si ni ko banaa la ba ndaw si foog ni bana ko mu nekkaat ci ndaw si daw ci ruq bi bi ndaw si demee demee ci ruq bi waa ji si jëmmi boppam continuer di insister di insister di ndaw si nag nee na moom jëpp la loolu moo tax bi mu jéemee jël ay ay ay ay baaraamam di ko jéem a def naka su dul noonu jàllul ay ndaw si yow mi am nga maîtrise de <laughs> ah ci naka noonu euh, waa ci jëmmi boppam continuer waat forcer waat ndaw si. di forcer rek gars yi dañuy xam tollu billaay dañuy tàggalikoog seenum xel te man li ma ci jaaxal mooy yenn góor yi comme gaynde non bawul waay ndaw si bawul ndaw si bawul ndaw si moom ndaw si moom ndaw si ba ba ba egg ca waaye li may xam nga ko waaye ba yegg ca ah te li ci gën a doy waar te gën ba <laughs> cee rey man mooy waaye ci jëmi boppam non waay waa ji yàgg na koo def boo demee de ak bëri feem moom la nga xamante ni moom la utiliser comme comme comme comme comme comme préservatif wala la mu utiliser ngir aar boppam gaa la <laughs> mooy gars yi nga xamante ni ñoom ñu ngi koy takk bu ñuy jëm ci maladie. gan nga utiliser ko comme préservatif ba yegg ci kaw ndaw si nit pour quelle raison lu waral loolu <laughs> miim réew ah wayu ah waaj de moom xam naa ni moom waaj de xumb nu mu sant waaye moom moom moom daal ndaanaan la ndax damaa xam ne yow fajal nga ni ngay ngay def naka su du noonu indil nekki ngay def naka su du noonu yemal eh, ci joxe ndékki rek dem sa yoon kon yéen malade yi encore une fois moytu leen seen bopp xam leen ni fa ngeen ne y a des pervers parmi vous nañ ko wax te dee am na ay pervers yu nekk ci yéen moytu leen bu baax a baax a baax mooy jàmm ji. mbokk yi ñu dem ca yaraax yaraax nag moom la fa xew lu jéeme lu doy waar eh, eh, man mosumaa gis lu mel ab ay buuse lañ fa jàpp xam naa ni ngeen ni buuse jërte jàpp waaye yéen léegi bala ngeen a wax buuse da ngeen xam buuse lan la doo tey ma wax la rek buuse bu lu mu <laughs> du buusam xar de déedéet <laughs> waa ji jaayul nag du buusa nag xam nga buusa lan ah ay buusay fas lan cheval seetal loolu ah ca yaraax lan moo tax ni man daal man lu tax sénégalais ñeme man moom moom moo ma jaaxal man lu nit ñimewu te def ñoom ñoo koy def aw fas boo ko rendee yàpp wa koo koy jaay ah, nit dina nit dina la romb biiram ba biiram ba toll nii nga naan waa ji sama waa ji temps yi mu ngi ci jàmm sama waa ji temps yi lépp taw feex nangam nangam fekk na jàpp fasa ca fees ba mu dell dell dell man moom yaraax moom un mois du ma fa dem deux mois du fa dem parce que yàpp fas lan fay lan fay lan fay lijjanti di ko lijjanti moom di ko joxe nit ñi moom man moom pare naa fa dibiteri yaag mayga yaag ya ca des ak ya des yooyu moom banaa ko ci naka doon la ñuy demee njenn lagan njenn lagan ñaari wujj ñoo doon xeex xeex-xeex bu metti benn wujj ba jàpp moroomam wujjam matt ko matt boo xamante ni ca loxo ba dënn ba matt bu doy ñu yóbbu ko li ci gën a soof te gën ma cee jaaxal mooy ba ñu leen yóbboo ca tribunal ba di leen àtte ah xale bu jigéen bi ci jëmi boppam ndaw si wujj wi nee naa ay waay baal naa ko baal naa ko yéen ngi dégg ba ba ba ba bëtt yërmaan ne nara na daw ba nar koo baal waaye moom dafa nekk di reetaan xàq tay la def di reetaan pour quelle raison yow yaa ngi màtt nit ki tooñ ko màtt ko ñu yóbbu la ci yoon ngay ree looy ree ah wujj rek wujj bokk jëkkër yéen ñaar kese ku ma déggal sama gaa yi yéen borom ñaari jabar yi yéen laay waxal am leen fu laak fayda ci seeni kër xool leen bu baax a baax a baax ni ngeen di doxalee ak seen jabar yi sur le fou mën nañoo indi coow lu métti wala nu def def jéer te su boobaa yow mi nga xamante ni yow yaay jëkkër ji doo ci mujj. Assane Assane tey fi ñu jëm ci ñaari sekkeen yi. ñaari sekkee ni la jantal Mara ak Aminata Seck jantal Mara gars yi xam nañ turam jaab Seck la ñu gën ko xam ci jantal Mara moom jantal Mara ci jëmmi boppam moo xam musiciens yi moo xam footballeurs yi moo xam ñi nga xam ne ñoo di animateurs yi moo xam ku bëgg a siiw rek ak ñi bëggu xaalis bëgg koo amee jam wiiri loolu xale yi naan jam wiiri noonu lañ ko bëgg a amee cest à ñu amee ko ci ci ci ci semé bu gaaw bu droit bu jub bu neex bu bu tegu. ñoom la dañoo bëgg di jam biir xëy rek am liñ bëgg ñooñu la jàndal maara doon nax jàndal maara moom li muy ligg liy liggéeyam li ci ëpp doole mooy da nga koy jox xaalis soo ko joxee xaalis boobu la xaalis mu jël ko fulal lu ko maanaam mu multiplier la ko comme nga jox ko un million mu defal la ko dix millions <laughs> yow waaye man xaalis ba muy ful man laa xamul man fa muy jëlee fa muy jëlee yeneen neuf millions yi man loolu mooy sama problème léegi nag moom jàndal maara ci jëmmi boppam teg nañ ko loxo li tax nu teg ko loxo dafa am problème ak Aminata Seck problème bi ñu jotee mooy Aminata Seck dafa yëkkati 6 millions jox ko ne ko fulal ma ko aywa jandarma laa fulal ma ko waaye ndeysaan moom ci jëmmi boppam xam naa ni jafe-jafe am caag yooyu noonu parce que peut-être mën na jël 6 millions yi dem ak moom comme ni muy naxee ñeneen ñi mi nga loolu daal moo doon seen problème ñoom ñaar mu nekk lu doy waar man dama xamul man yéen lu leen dal ana lan mooy ndey ji bàyyam yow yor nga un million jigéen nga defal commerce. balaa say 6 mois 6 millions yooyu noonu balaa 6 mois peut-être yàlla mën na la ko may bu dee commerce bi dox na am nga 1 million ñu bëri am na ci ñu am ay alal lu dul jeex quinze 15000 15000 francs CFA la ñu déparé man xam naa ci ay nit yoo xamante ni 15000 francs CFA la ñu déparé tey jii ñu ngee kii million kon lan moo la ci dugal yow xale bu jigéen bi lan ngeen naan jantal maara acca bi nga mbokk yi fi mu toll nii nag ñi waaru tey jox mi mooy ñii nag nga xamante ni ñoo dem ci baar yi ak discothèque yi. ndax tëj nañ ko loolu moom tëj nañ ko diir trois mois ci kanam naan kan yeeg dem ko du baar bon ah fi mu toll nii moom arrêté leen te xam ne loolu moom caabi ji damm nañ ko sànni géej fii ak trois mois amul baar amul lu ci toog teg jeunes yi nga xamante ne dañuy nekk ci terrain yi di football gis nga moom moo leen nit ñi lu leer laa leen di wax Aly Ngouille Ndiaye ak gars yi ñu ngi ci sur le terrain te seen i semis lañ seen seen i seen i ràññees lañ yor ak seen i waaw yaa ma gën a xam te liif la ma la ci waxoon xam nga ko bu baax ayca ci naka noonu la ñuy dem ci benn xale bu jigéen boo xamante ni Sine Saalum la jóge xale bu jigéen bi bi mu ñëwee Dakaaru Njaay Jal Jóob toog na 4 mois yoo xamante ni daanaka amul fu mu fanaan moom xale bu jigéen bi ci jëmmi boppam dafa am problème ak ki nga xam ne moo di yaayam loolu moo tax mu jóge Sine Saalum ñëw Dakaaru Njaay Jal léegi bi mu ñëwee Dakaaru Njaay Jal Jóob tumuranke parce que toog na presque 4 mois amul kër gu mu fanaan kenn hébergé ko ci mbedd yi lay fanaan léegi ci diir boobu ci la dajee ak benn waaye bu woo ci turu junior léegi bi mu dajee ak junior junior ci jëmmi boppam dawal bët bëtu yërmande nee naa day dimbale xale bu jigéen bi cey junior junior xamul nag moom fan la war a mën a yóbbu xale bu jigéen parce que moom dañ koo yor amul ñu fi boppam léegi moom la mu def du leen lu dul woo benn xaritam bu tudd Ali Ndaw Ali Ndaw la woo téléphone ni ko Ali xale bu jigéen bi nangam nangam expliqué ko Ali ci boppam jël numéro xale bu jigéen bi woo xale bu jigéen bi téléphone affaire bu doy waa cey bi mu wooyee xale bu jigéen bi téléphone ni ko carrément ñëwal sama kër mën naa la héberger ci naka noonu mu ni ko amul problème dinaa ñëw ku may woo ah ci naka noonu mu ni ko amul problème dinaa ñëw yaa ngi mu ñëw xale bu jigéen bi bi mu ñëwee ci kër Ali nekk ak Ali Ali ci jëmmi boppam proposé ko ni ko man. soo gisee li tax ma indi la sama kër nii nii naa ki naa Sambati Njaay jaar na fii xar yi fii la jaar léegi sa ngam ñëw nga nag damaa bëgg nga nga nga jaay ma xam ngeen ci lim koy jaay yéen a ma gën a xam léegi Ali ci jëmmi boppam wax loolu xale bu jigéen ba waxaale ak moom juboo ci quarante mille francs ah waaye yow xale bu jigéen bi moom xanaa yàgg naa jaay ah! kii di dafa mel ni quatre mois yu am Dakar Njaay jal Jóob yépp loolu la fay jot léegi ñu juboo ci quarante mille francs ñoom ñaar ci naka noonu ñu nekkal ko ca biñ ci nekkee benn yoon ñaari yoon xale bu jigéen bi la sonn tëdd di nelaw bi muy tëddee di reposé wu nag ci la ah waaye waaye Ali ah waaye Ali Ali yaa wuyu Ali wuyu <laughs> Ali wuyu Ali jël téléphone am ci jëmi boppam daal di filmer xale bu jigéen bi photo ko tout nii maanaam sunu dara. yéen ñi déggul tubaab temps yi moom damaa jàng français damaa dégg tubaab damaa yokk ca la ma déggoon anglais maa ngi koy jàng ci kanam tuuti di ci xam dara léegi mu daal di koy foto toute nuit noonu sa xaay sa avot sa nii bi mu ko photo toute nuit daal di koy jël denc waxu dara xale bu jigéen bi de bàyyi ko ci biir waxu ko dara bàyyi ko ci biir xale bu jigéen bi ñibbi deni moo rey gay naka naka la dem ni ko carrément au lieu mu héberger ko waa ji héberger ko ni ko génnal amul problème demal après man dinaa la pour nga ñëw nekk si kër gi léegi xale bu jigéen bi dem foog ni mu rey nekk foog ne am na fu mu ne am na fu muy baraxee maa tax waaye ci jëmmi boppam envoyé waat xale bu jigéen bi photoom yi ak li nga xamante ne moo di vidéo yi ni ko bëgg nga ñëwaat ñu nekkaat ci plusieurs fois wala ma jël say photo vidéo tas ko ci li nga xam ni moo di réseaux sociaux yi waaye xanaa xanaa Ali moo sadik ma ne ko xanaa Ali moo sadik xale bu jigéen bi tiit jaaxle xamul nu muy def léegi junior woo ko xale bu jigéen bi dee na dal na ci parce que puisque junior woo na ko te junior xaritam la moom moom ça va quoi amatul problème ndekete yoo yoo yoo junior la nga xamante ni moom la koy doyee moo di li nga xam ni moo di paaram paaram maanaam quarante mille yi ko aali fay parce que aali woone junior ni ko fay naa xale bu jigéen bi quarante mille moom mu bëgg paaram ci li nga xam ne moo di quarante mille sonal ndaw si sonal ndaw si sonal ndaw si ba ndaw si mujj jël mille francs yónnee ko Junior léegi bi ñu ko yónnee Junior léegi Ali continuer di ko sonal pour mu ñëw mu nekkaat ak moom xale bu jigéen bi xamatul nu muy def mu daal dem la ko amul la fa gën am la fa sës daal dem porte ko plainte lii moo tax seen coow li àgg sunu gaal 24 mu doon lu yéeme lu doy waar te lépp fii lay xew ci Thiès Info mbokk yi xanaa jommi ngeen xanaa waaru ngeen xanaa loxo demati ci gémmañ moo yow ay Sénégal saa su nekk nga dégg loo xamante ni peut-être ci jamono ca ñoom maam bu ko mag déggee waa da ko daan jaral mu dugg ci am ne tëju di jooy ba ngoon jot te wax naa leen ko fi la fois passée nee naa leen ndaw ndaw xale yu bari léegi yu jigéen yu bari lijjanteetuñ ko amatuñ ko seen yoon te ca ñoom maam billaay xale bu jigéen da ko daan jaral mu téye boppam sàmm boppam tele sorte que day def le tout ba am ko indil ko ay waajuram waaye léegi moom ay linde mière ay yeneen ak yeneen moo tax doo xàmmee ku ko amul ku ko amul. voilà kon mbokk yi seen mbokk seen xarit Fall Damel fii ci Thiès Info nee naa leen bu neexee fii la bu doxee fii la bu baaxee fii la nee naa leen nag émission bi man la ak yéen li xew ci réew mi li yëngal réew mi li ko lëmbaaje loolu laay fas yéene indil tegal leen ko ci table ji yéen ci seen jëmmi bopp li ngeen di def mooy ci seen clavier. foofu ngeen di waxtaanee ak man li ma leen indil naka la ñuy def ba trouver ci ay solution nan ngeen ko gisee nan ngeen ko jàngatee bu ci nekk ci yi nga xamante ni indil naa leen ko moo xam fa ma commencé ba ci fa ma jeexalee bu ci nekk ci yooyu nekk yu doy waar mbir yoo xamante ni fii la xewee ci askanu sunu gaal man seen bokk seen xarit Fall Damel ma indil leen ko fësalal leen ko tegal leen ko fii nga xamante ne mooy ci site bu mag bi nee naa leen Thiès Info njëkk a juddu njëkk a baax di site bi nga xamante ni képp ko maaseel jamono bàyyi nga ko xel ndax romb na la jiitu na la ngelaw la romb na la bu yàgg yaa ngi koy gisee ne la muy dem ci Thiès Info kon nag mbokk yi ngir di suivre Fall Damel ak képp ku nekk biir Thiès Info na ngay def moo di abonné soo abonné ba pare bësal cloche de notification benn benn benn benn numéro du la raw ci lii nga xamante ni moo xew ci réew mi te lëmbaaje ko jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci man ba mu doy def ko ci kii jàkkaarloog man di asam nee naa la képp kuy filmer moo la man ci image def ko ci yéen ñi may seetaana ah, def ko ci ñun def ko ci askanu sunu gaal jàggeen